guerrero, guerrero. naan 2023 Pikine moo ko moom en tout na neex gannaaw ba Boy Niang daane kii di euh, Balla Gaye 2 tey di soq maar la encore une fois Guédiawaye Pikine c'est le derby c'est le grand choc c'est le combat des bad boys soq ba soq xam ngeen ko mu tol nii moom boo gisee mbooloom mi yëpp nga xam ne ñu ngi waajal bu baax baax waaye kan lay dajal doomu Guédiawaye boobu xam ne nee nañ moo ay su luur koo koy maar la waa Pikine nan lañ waajee bii combat Khalil automatiquement automatique topp mooy daal xool gars yi automatiquement <laughs> gani Pikine rek Pikine rek Pikine Pikine lay fay. ci la nekk sant sëñ Touba bu baax a baax rek. na ngeen waajee seen tey combat bi. waaw comme ni nga daan waajee rek. bis moom du romb bis. lu ñu yàgg di wax di ko waxaat rek Pikine moom tout le monde 18 ans. xale bu ndaw bu amee bis ñu ñëpp dañuy waajaat suñu bopp mag tamit bu bis ñu ñëpp dañuy waajaat suñu bop ku nuyoon ñu dem lépp yes. loolu demee lamb ñu ngi doon am moo aay si luur Marley moo aay si luur waaw yooyu noonu daw jël tànk tax yooyu amul fi waaw mbër fondement te boo xoolee suufu tànk suufu suufu sooq rek nga xam sooq nekkul mbër jàpp si tànk di ko xalab non non Marley day ñëw day ñëw non moom liggéey nañ si bu baax a baax a baax sax loolu lañ gën a liggéey waaw loolu moom bu ñu ko defee man moom ma si xel ñaar wax dëgg fa yàlla euh, sooq bu taxaw ko song ko boo ko defee daanu wala azim boo ko defee top 5 la jëm Bantamba. kon maanaam làmb ji mën nañ si Mbaye gis xeex. ah xeex bi du bëri de lu ma leer de wóor mooy maanaam Marley day jéem a sàccat nu xeex daw jàpp loolu la bëgg waaw te loolu ñun liggéey nañ si bu baax a baax pare nañ. sànq Pikine Guédiawaye fu mu toll nii da am defet ba Balla Gaye amee defet Guédiawaye ba léegi boo guddi que 2-0 waaw waaw loolu moom derby la Pikine Guédiawaye na moom day day tàng quoi waaw si jing ñàkk tàng bi la quoi waaw mais Marley moom nekkul moo ñu feneen bu neexee yàlla soo ko dafa juumoon mu war a ñëw leeral waaw combat bi moom waruñu see nooy boobu waruñu see def dara dañu war a daan daan moo ñu arrange te loolu ñu koy ñaan yàlla baax a baax sax ñaanuñu yàlla mara duñu téeg waaw duñu yàq suñu yoon dañoo juumoon waruñoo juumat waaw noonu la demee sox jëru poids bu rëy bëri si combat bi non sox kii moom nitu yaram la sox ni la yaaga waaw moom euh, euh, lu ñu naan doomu ñaay kenn du ko ñaanal euh, gudd fan waaw dañ ko ñaanal mu gudd fan rek kenn du ko ñaanal rëy da nga ñaanal la demee sox moom xaar leen lépp incha allah ndam moom ñun lay àndal bu neexee yàlla ah, ñoo ngi lay fay tur bi naka la. Fallou laa tudd. Fallou waaw. da ngeen waaj seen combat. non nañ ko pare instant yi pare nañ saa yi day ñëw rek ñëw yeggal kii bi mission accompli mission bi rek moom lay ñëw yeggal léegi léegi nii mission accompli. mission bi du yomb tey de. non day yomb kay ndax saa yi ni ko gisee nit léegi léegi nii suñu xel dal na waaw. mais Maara la ni moo aay si luur. Maara la moo aay si luur waaye si kër si arbitre sifflé lay xam lépp dëgg la si lay xam ba xam mu aay na si luur wala aay si luur su fekkee yàlla moom si arbitre sifflé rek jeex na. loxo dar gémmiñ. pour te si nekkee bëre bi moom instant si la gën a mën a kii ndax ndax dafa jógee si défaite instant yii ñëw ñëw war a kii nii marqué ji 3 points instant yii loolu rek la mën a def nii instant ñu bari dañoo xaw a bàyyeeku te combat bi la mën a ñëw marqué 3 points ñëpp ñëw indi ñëwaat. waaw Pikine Guédiawaye. Pikine Guédiawaye non foofu nag day gën a kii nii ndax instant yii Pikine Guédiawaye moom dootuñu mayante dara waaw. mais instant yii waa Guédiawaye dañoo jóge su leen naqari waaye waaye tey la ñuy gën a kii nag tey la ñuy gën a am lu leen métti waaw c'est vrai. salaam. ñu ngi ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. nga présenté waaw man la Khalis Seye attaché de cabinet chargé du protocole de la commune de Guinaw Rail Sud. waaw sama teewaay tey fii man ak euh, sama collègue yi kii mooy Mamadou Diop euh, di responsable des jeunes. chargé de la formation dans la commune kii mooy Mamadou Fall aussi di directeur DAS yoro lépp loo xamante ni mooy eh, action sociale e éducation donc dañ ñëwoon fii tey représenté l'honorable député Abdoulaye Diop euh, pour ñëw andi APM pour le litteur sox bi nga xamante ni doomu dëkk bi la. nu mu demee financièrement lay doon wala moralement wala. waaw financièrement et moralement aussi financièrement et ngeen gis ko man est am moom confiance baax baax si làmb tey. waaw am nañ ci moom yaakaar comme niñ ko daan amee saa su nekk di ko ñaanal comme li may wax rek euh, doomu dëkk bi la représenté Pikine représenté ginnaaw raay ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam bu sedd guy incha allah tey. c'est la première fois ngeen def si mbër wala tàmm ngeen ko non kër gii miin nañ ko torop ak yeneen këru mbër yëpp parce que politique bi ñuy def si su le plan képp koo xamante ni da ngay bëre fii nekk mbër soo xewle dañuy ñëw. appuyer la soit dinañ la defaral ay t-shirt la ci ay car wala ñu jox la une enveloppe financière boo xam dina la dimbali pour nga mën a euh, préparer sa bis. lan mooy relation maire député maire ak les lutteurs de Pikine waaw bërki démb lañ joge Kër booy ñaa ñun ñi ñoo àndoon ak yeneen suñu yeneen naataango parce que moom amateur liit la déjà Ablaye Diop da ngeen koy gis muy dem tout le temps ci làmb ji. ba pare nekk maire boo xam ne aussi am na une vision boo xam ni ci sport lamb dafa bokk ci suñ cosaan ñuy ay sénégalais dëkk ci dëkk bi bëgg làmb lool di ko seetaan di dem stade donc nga yoram budget boo xamante ni war nga ci mën a jàppale ay nit soo yeewoo tuuti war nga mun di génne dara di ko def ci loxo ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy mbër yi waaw asalaamaaleykum Iba ñu leen nuyu ñëpp di leen ziar. yaakaar naa ne du mu ñëwaat ci présentation parce que xaalis na présentation bi ci compétence décentralisée la bokk quoi kon nag bu fekkee dafa nekk compétence boo xam ne dañ ko décentralisé kon yoon la maire bi nga xamante ne lii ci wàllu sport la moom ci di ay subvention ak ay taxaw ak ay appui kon donc ci boobu lañ la ko moom moo tax taxawaay boobu daal c'est ça. waaw yaakaar naa ne moom wax na li muy wax suivre ñu ngi koy suivre. yaakaar naa ne bi mu jigee ci combat bi mu ji bi contre ak franc am na lu mu am na jagat bu mu ci def moom ci boppam kon donc moom mi xam ne moo def jàngatam ba pare ñun dañ ñëw ñu ko gisee nag je pense que ne ñu ci am ci yaakaar bu baax a baax te yàlla bu yàlla tas yaakaar bi daal loolu lañ ciy ñaan. waaw loolu moom xam naa ne dañ koy bàyyi bu ñu demee waxtaan ak moom waxtaan ak moom parce que fi doy xam naa yaram bi dafa xaw a tourné bi ñu ko bàyyi muy noppalu mais bu ñu demee dinañ ci waxtaan ak moom incha allah quoi waaw c'est ça d'accord déjà euh, sama collège yi li ñu wax di gërëm d'abord la presse parce que yéen ngi def liggéey bu am solo honorable député Mbaye moom ñëpp xam nañ ko ci disponibilité par rapport ak ak monde sport xaali wax na ko moom ku bëgg làmb la donc képp kuy def làmb fii ci gox bi mais également ci département de Pikine day ñëw soutenir la di profité ci occasion bi di ñaanal suñu frère Sokh yàlla may ko ndam bu sedd guy ni ñu amee woon ndam ci ki nga xam ne moom mooy Balla la fois passée donc ñu ngi ñaan yàlla mayal ñu may ñu ndam ñu sedd guy incha allah. xam waaw loolu moom baal ñu bàyyi ko dans la discrétion rek waaw loolu moom Ablaye euh, yare wuñu noonu lu ñuy joxe moom dañ koy joxe rek bàyyi bàyyi gars yi ci biir daal. yàlla yàlla def un message pour les message bi c'est très simple ah fair ba pare nañ dem waa ginnaaw raay ak waa Pikine yëpp nañ dem ànd ak Sokh supporter ko jàppale ko nekk ci ginnaawam. mais bu mu am coow bu mu am xuloo bu mu am xeex donc loolu daal la ñaan yàlla daal yàlla yàlla def jàmm ñu bëre ci jàmm andi ndam li fii ci ginnaaw raay ñu féete ko incha allah. merci beaucoup. ah. tur naka la. Mouhamed waaw. combat bi. maa ñaan soq. si bàkka yàlla mu ngi sàq ñaan ko yàlla may ndam ndam bu set guy comme glace te sox moom xam naa ne moom suñu mbër la moom sama mbër la moom te moom du yàq du yàq du moom te yaan ko yàlla may ndam te yaan na ko yàlla gën yokk suturaal yaan ko yàlla may ndam set guy comme glace waaw sant kay lépp jaam man Ismaila laa tudd ñu gën ñu ngay woowee Izo waaw pare ngeen. nañ fépp kay physiquement côté doole ma lépp waaw di ñaanal yàlla nag soq yàlla na ko yàlla may ndam quoi. waaw ndax ñun ginnaaw raay amuñu kenn ku dul sook tamit waaw pour ñu xam ko. tey combat bi du waaw Marley ah, du yomb Marley dugg na fi duggaat na fi dugg na fi am fi defet n'est-ce na fi ak Valdo Valdo daan ko kon ñun Marley jaaxaluñu waaw soq nag ñu ngi ñaanal yàlla mu am ndam bu rëy. waaw Marley nag liñ koy wax leen la na dëggal taxaw ñu bëre ak moom daan ko waaw si defet nag lañ jógee mais tamit ku dul daanu doo defaru te ñun tey nii soq bi ma gis nii moom ndam rek lañuy ñuy indil incha allah. mais soq yow est am dara mu am benn inconvénient lamb loolu moo baax ndax tey dafa war a taxaw bëre wane bëreem wane jàmbaarteem ndax bi passé si defet la jóge te wax yi bëri nañ ah. supporters yi ndeysaan kenn bëggul defet moom mbër biy bëri sa bëggul defet mais ñi ñaa ngi wax naan soq par là soq dafa yambare dafa demee nii demeewul noonu moom moo gënoon bëgg franc victoire bi fuuf supporters yi comme ñi nga xam ne ñu ngi ginnaaw raay di wax mbër bi di ko xasar ku dul bëre doo daanu mais ñun soq ñun ñoo ngi si ginnaawam billaay yàlla na ko yàlla may ndam billaay barki sëñ Fallou yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy amiin ay siyaar nañ Baye Fall soq bu jóge si defet mën am ak beneen xale bu mel ni Marley mhm. mën a bëre loolu mhm. loolu du risque non Marley moom champion la champion moom kenn du ko naatable champion la mais xam nga tamit soq combat bi ku ko xool xam kenn gënu ko koo bëgg mhm, si suba man jàkkaarloo nañ xam naa ne ak concentration bu mu kii ci defet bu mu jógee am na lu mu joué si moom lu bari am na lu mu jàng ci moom mais di ko ñaanal tamit incha allah mu am ndam rek su neexee yàlla conseillé tey mu bëri ak parce que Marley naan moo moo ay si luur. Mhm. mais soo ko demee soo ko ku seetaan entraînement bi mujjee nii ku sumee ko ngay xam ne kii du poids lourd wàññeeku na lu bari xëy na nag Marley moo gis loolu gis na waa ji poids lourd la. waa Guèye waaye mer de. Hmm. te dañ ko bëgg fay neen si sox. non ñun ak ñoom bërëb bu ak mbaam la rek Pikine Guédiawaye too xam nañ ñoom xam nañ ñun xam nañ Pikine Guédiawaye moom sawaay ñoom jaaxaluñu. jaajëf. waaw ñu sant bu baax alhamdulilah ñu sant bu baax a baax. pare ngeen combat. waaw pare na fu mu toll nii. dem jël suñu ndam nag moo ñu des incha allah. Ah. mais boo liggéeyee boo liggéey boo liggéey ba bés bi rek a yomb. waaw ah, boo xam li nga xam li nga liggéey yomb. te xam nañ suñu adversaire bu baax a baax a baax xam nañ li mu mënee ak fu mu xam nañ ko. tant adjoint na waaw mais. psychologiquement nice ah ak physiquement aussi alhamdulilah waaw loolu fa loolu mu ne pour l'instant quoi mais techniquement moom suñu secret la bu ñu denc la quoi waaw. gars yi nee na maar la moom yàgg yàgg day ñëw te si tànk lay ñëw. non loolu moom loolu yow yow yow mi sax xam nga ko day daw day fi bukki day daw daw dellu si waaw bu dawee bu dellu si dina am lu mu fekk liggéey nañ si loolu incha allah waaw. déglu Pikine Guédiawaye. comme d'habitude rek comme rek ah, bi ma ko yomb bi paase. bi ma ko yomb waaw incha allah. waaw naka la. ça va yaa ngi jàpp. la. Mody. Mody ah, nga ndam rek billaahi waaw ndam la gis nga billaahi. ndam dafa am lu koy indi te maar ngeen doon dajal. maar ku ñu dajee moom daanaan la moom. waaw daanaan la mooy loolu yàgg na si bërëb bi mooy loolu. waaw yaa ma gën a xam la na def nànk rek. waaw ànd ak xelam quoi ñu ndam lañ soxla quoi. ndam lañ soxla bi laaj yàlla nañ may ndam si kaw Marley. ñëpp ne Marley moo ay si luur te bu gis soog xam ne soog pour luur la est ce que loolu ak defet bu mu jugee est ce si moom ñu jël kii bu ah, daan soog tamit mooy loolu la tamit nee nañ si luur ba bis bis ba pour xeex wala pour yëpp lu mu indi kay ñu fekk ko si ñu fekk ko si. sox lu mu indi kii Marley lu mu indi ñu fekk ko si laa maa la ngeen di xaar la la ngeen xaar waaw soobee yàlla. a ñëw. kan ñun ah kay moom moom moom xaar kay moom la instant moom la ñuy déglu yàqamte yàqu la de ko yàqamte moom mooy loolu waaw. maa ngi si jàmm. tur bi naka la. Anna ah, ah. Diatta. def otes nii la moo ñaan nañu yàlla continuer ko. te da nga préparé moom bëri di ñaan yàlla rek mu may ñu ndam bu sedd guy buñ jikk attan ko te yàlla yóbbu ñu feneen fu dul fii. président ñoo lay waaw ah, ñoo ngi fay nijaay daaw waaw. ay gaan sox ñun waaw ay gaanam lañ. combat yi pare ko pare ñoo tax ñu ñëw fi ñoo ngi jugee ba biir jokkoo ñëpp waa Caaroy booy Caaroy ma fi yaa bépp ngi nii jugee ba biir jokkoo ñëw fii nii pour Sokh. amaana nag lii nii bu génnee tey ji war naa am fu mu koy yóbbu nag combat booy paase fii daa feesoon dell waaw ku nañ ku daanu nag wéet ak say mbokk xam amaana looloo tey boo ko dal tey nii waaye bu génnee tey ji combat war na fu mu koy yóbbu fu baax a baax a baax ñun moom wóolu nañ ko ndax entraîné na tam na jom boo xamante ne bu jàppee booy bi da koy defal bagage. waaw moo tax tey boo yëpp ñëw nii jugee ba caaro yi ñëw fii pour ànd ak sa waay dem pour ji ndam tey ndam rek moo ñu war te incha allah gëm naa yàlla borom la ñuy may ndam ko mais muy bëre xale bu mën a bëre muy Marley jugee géej waay waa géej waay jóge si ay défaite est-ce que loolu tamit nekkootu benn risque tamit. non Marley Marley xam ne nga Marley champion la Marley moom champion la bu jàppee tamit du bàyyi xam ne nga bu baax a baax a baax a baax a baax waaw mbër tamit moom tamit lu maar la mu ne moom tamit fu mu jàpp tamit fu mu bu baax a baax day day def dara ama ñoom ñaar tamit six à rek benn lañ ñoom ñaar waaye wóoru lañ si mbër ñun ñu xam nañ lu mu liggéey ndax chaque jour ñooy dem dëgg seetaan yi xam nañ lu mu liggéey bu baax a a baax te ndam rek moo ñu arrangé tey te dañ koy am incha allah rabi si yàlla àndee. adjoint. waaw. nga def dafa war a ñëw bëre. waaw bu xeexee dañ koy duma bu bëree dañ koy daan. waaw mun mais mais ñun xool luñ bëreem ñun suñ bëre lañ xool essant bi ñun suñ bëre lañ xool ñun xool fu mu mënee xool waaw mënee xeex xooluñu ko bu mënee bëre xooluñu ko ñun suñ bopp lañ gëm waaw bu bëree dañ koy daan bu xeexee dañ koy duma. mais moo aay si luur. ah moo aay si luur moo aay si luur waaw nañ seetaan combat bi yàggatul dara ay ay ay waxtu la rek moo si des. waaw dër bi la teewul fii ginaaraay la ñun tapetuñ lool sax loolu dawul suñ yaram ku dul maar sax buñ ko jàppee dañ koy faxas. waaw ginnaaw si défaite si Balla Gaye. waaw a faral la nga fayu si soq tey. bilaa duñ ko fayu xam la tax duñ ko fayu ñu dañoo mun suñu boor dañuy baxal ba mu baax bu ñeeree dañuy ñulugaat ñun la. bilaa wala wa taala waa ginnaaw raay bi kese amul xalaat baa ñu xel nit. ñun buñ jàmm dégg déggoo la ma la wax de doon bëreel Balla Gaye sax tey jii tey jii buñ doon bëreel Balla Gaye la wax bàyyi ñu ko xel xam la ñuy jàpp buñ ko jàppee dañ koy faxas wuti leneen yaa may dégg buñ ko jàppee dañuy faxas wuti leneen ku dul Balla Gaye sax muy muy keneen ak keneen buñ jàppee dañuy faxas wuti leneen ñun soq kese. kon faxas. joxos joxos joxos joxosaan. xam nga fa xam nga fa laa jógee pour Touba contre Franc ñëw ma léegi tey date bi tey la 14 ak lu mën a xew soqalee daan maral lii bu jàllul vaar leen ma dégg nga mais bu jàllee nee ko nee nañ ko teg fépp Abdou Fatah laa tudd Touba laa dëkk daan maral incha da koy daan même bu ay jëli leer na ak jëli bi leerut rek après da koy daan bu soobee yàlla. waaw Touba laa jógee ba fii Touba te damay ñibbi soq dafay daan. lan moo leen di combat bi. combat bi soq sans que Baye Fall la dañuy wax sax su ñu waxee dafa bëgg Serigne Fall loolu rek ma booleeg moom xam nga ku Serigne Fall mën naa waroon bañ laa nuyu. waaw waaw waaw an da koy daan daal bëgg maa sori ci daan incha allah ndax bu ñu koy ñaanal ñun benn côté lañ ko mën a ndax ay nit alxuraan lañ ko ñoo suñu defal ko te moom wóolu nañu daal waaw dina ko daan bu soobee yàlla. xam nga bëre ba nga ko yombalee ni naan da daan maat naa la wax lu garaaw xam ngeen waa Géejawaay la waa laa bëgg waaye daan mar la dégg nga wax bi dafay daan incha allah ah fay bor bu soobee yàlla hmm. xam nañ ne yaa ko mujjee gis euh, euh, ban moment nga ko gisee bon yàggul dara ndax man si kër gi laa génnee léegi ah. waaw moom moom wax dëgg yàlla mu ngi pare de. mu ngi baax mu ngi baax comme nee nañ combat yi ni mu daan baaxee rek ñu dem yàlla dogal lu muy dogal mais bii moom xam nga dafa wute quoi. waaw ndax boo jugee defet moom da ngay jëli élan ak doole. waaw te boo ñëwee da nga war a wanewaat leneen quoi. ñu gis chaque jour soq bu ñëwee day andi état bu baax macha allah mais li koy daane kenn du xam lan la. waaw dara xam nga ndam moom yàlla moo ko yor nit da lépp lu nga war a def yàlla mooy mottali waaw ndax nit moom kuy moy sa bopp yaakaar naa doo musa ñàkk waaw yàlla nag mooy maye affaire moom da ngay gëm ni da ngay daan def li nga war def rek waaw lu yàlla dogal tam ñu xam ne lii dogal yàlla. combat bi nekkaat Pikine Guédiawaye. waaw Pikine Guédiawaye moom dafa yàgg di neex waa si lépp waaw te loolu noonu sant yàlla la waaw ndax xam nga rek soo ko moom du nekkul c'est la première fois muy bëreeg mbëru Guédiawaye quoi waaw kon bu demee nii sant yàlla di ñaan yàlla mooy ñu ndam rek incha allah. adversaire bi ngeen di bëreel ñëpp ñu dafa ay amoo lu non man moom awma lu may tiit si bëre wax yàlla man ak sama gëm-gëm rek awma lu may tiital kenn si soog ak mbër mu munti doon n'importe quel adversaire ndax adversaire fa adversaire rek waaw da ngay joxe cër waaw ñëw pour am li nga bëgg quoi ndax lam moom làmb la rek ku ne mun nga daan sa morom nit mun nga ko ëpp doole mu daan la mun nga ko ëpp doole daan ko waaw mais ñun moom li ñu war incha allah ñu ngi si te soobe soobee yàlla dañ ko wane incha incha allah mbër bu tollo fii ay famille mbokk yi supporter yi nan la koy dundee waaw dara man moom affaire moom du ma jëlee kaw rek man moom wax dëgg yàlla man gëm-gëm mooy demee chaque jour moom laay wax rek affaire dépassé wu ma quoi ndax maam du question rek ay loo xamante ni maam da nga koy bàyyi xel de trop wala daf lay jaaxal affaire yooyu lamb lamb la rek ni nga mën a daanee sa morom sa morom noonu la la mën a daanee waaw ñun moom l'essentiel daal dañuy def lépp lu ñu war xam nga waaw dem uti ndam comme moom la ñëpp di uti ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ko bu soobee yàlla. yéen ñaar ngeen bokk ndey ak bu takkee ngeen ba woon la gannaaw looy yëg. waaw dara deret moom dafa for moom wax dëgg yàlla <laughs> c'est comme jàmbur sax day bëre ngay am nooy mel moom moom waxuma laa koo bokkal deret mm-hmm. waaw di ko ñaanal ndam rek waaw ndax ndam rek lañu soxla fu mu toll nii te moom rek la ñuy ñaan bu soobee yàlla sa combat ak sa combat bi passé dama ko tàllal micro mu ne ma combat euh, combat soq bu daw bi moom laa gën a fonk sax ni sama komba a dëgg la xam nga moom xëy na affaire yi foofu la ko tooloon wax na dëgg deret moom dafa foor waaw te nit moom amul amoo dul say nit amoo lu dul ñi nga bokkal xam nga tey affaire làmb moom dafa xaw a doy waar quoi waaw ku nekk ak ni nga koy jëlee rek comme ni ma la ko waxee xëy moom foofu la ko affaire tolloon yàlla dogal na lu muy dogal sant yàlla quoi waaw ñu nekkaat si leneen rek addina ngi jàkkaarloog yow ana tey lan ngay wax ñi nga xamante ñoo ngi lay seetaan à wasaare li rek Leewtoo ak seen làmb lan ngay wax supporter yi nga xamante ni ñoo parce que yaakaar naa vidéo yi day dugg balay làmb bi dara di wax ni gars yi waa Pikine rek am na ñoo xam dëkkuñ Pikine sax ñu ngi supporté Sokh di ko bëgg quoi di leen wax ñoom ñëpp nañ ñëw rek waaw ànd ak yar ak teggin quoi ah, ndax lamb moom avant tout fair play la quoi ndax sport la di ñaan ñëpp ñëw si jàmm ñibbi waat si jàmm yàlla defal ñu ndam incha allah. Babacar même question bi sa yar bi dara non du question doon noppi sax xam nga comme ni ku nekk rek ak ni niñ la yaree man mënu ma mel ne leen dul nii quoi ndax sama yaay loolu la yet def si man aw ma habitude ma am di waxee nu ma neex quoi di waxee sama coobare bopp wala sama teeyu mais comme lam moom boo si nekkee moom xëy na parfois di nga gis nit ki beneen xar si moom. ndax hmm. ndax boobu day làmb. mais à part làmb moom or làmb la quoi foofu xam nga jàmm ak salaam rek te ñun si loolu la ñuy dox quoi. waaw sant yàlla bu baax nag di ñaan yàlla defal ñun ndam bu soobee yàlla. Hmm. incha allah waaw tawfeex maa ngi gën a kontaan. tawfeex waaw jaajëf. Mbadou. waaw wala kii ak kii. jàmbaar ñu ngi leen. waaw ñu ngi leen di fay yéen ñëpp di leen siyaar di leen delloo seen di leen jox seen waay quoi ah di jégalu itam si déplacement bi baax a baax baax baax a baax. pare ngeen. waaw pare nañ si lépp pare nañ pour jàmmaarloo Marley pare nañ pour jëflante ak moom waaw soo ko xam na li kay xaar xam na fi mu jëm parce lamb ji nii tey pour moom moom moo war a toog diriger quoi parce dafa am lu mu soxla te dafa am lu mu bëgg dafa am fi mu jëm parce lamb moo xaar. jum waru ko daanu waru ko parce que ñu koy yebee luñ koy ñaan mooy loolu noonu day ñëw samp dëggal boppam bëre parce que ku xam Marley xam ni ndaanaan la te Marley day bëre si ñaari temps day bëre deux temps day bëre ci kaw di bëre ci suuf waaw ci si biir action yooyu noonu da ciy jëflante ñaari yoon waaw moo tax ñun xam nañ ci lu muy bëre ñu ngi koy xaar tamit ci loolu noonu. ñu koy ne bi maanaam xeex bi si bëri bëri parce que Marley day ñëw. waaw Marley day ñëw. parce que bu ko xamee bu ko xamul yëpp ñun xam nañ ni Marley day ñëw Sokh li war maanaam mooy lan tey dafa war a xeex bëre tey loolu kese moo ko war xeex bëre wax dëgg neex yàlla tey Sokh dafa war a mun a xeex bëre dafa am lu mu war a wone ci làmb parce que tey li ñun chaque jour loolu lañ koy wax gis nga wàññi wax yokk jëf parce que moment bi ñu toll jëf rek moo des wax ji amatul solo jëf rek parce xam na li kay xar xam na tamit nu mu demee parce yoonu làmb moom dafa metti soo amee ay tolof waaw nga daanu da ngay dégg lu ne da ngay gis lu ne waaw xam ne làmb moo demee noonu quoi mais tey moom li war mooy maanaam mu taxaw dëggal boppam xeex bëre. waaw soog neex luur waaw bu ñëwee dina xam li mu fay fekk parce que liggéey na loo xam ne li daan marle ak keneen ak keneen waaw parce que làmb ji moom ku waxal xam ne waaj na ko bu baax a baax a baax a baax. daf ko hmm? non derby Guédiawaye Pikine waaw du jeex instant moom mënul jeex quoi waaw parce que dañ ko fee fekk quoi mënut jeex. dañuy jëflante xaaraat leneen quoi waa que am na yeneen adversaire yu mu war a bëreel waaw. bu jeexee jeex na amul leneen tous dara du xew. soq rek. soq jëm kanam. maanaam waa Asile. na wàcc tànk yi Marley daw jël ko ñu libere ñu. combat bi foofu la na wàcc tànki yi Marley day ñëw falan yi lay jaar xam nañ Marley ba diisul na toog si tànk yi rek dox si kawam. est-ce que stratégie. soq dañoo amel bor. comme maanaam boo bëggee dégg-dégg dañoo amal bor bor bor lañu war a fay ñun xaaratuñ dara bor lañu amee nañu fay ngir yàlla war suuli marle buñ ma ko joxe xanaa sama daan ko barke suñ bamba booy yéex muy waaw man la daan ko de borom xaalis booy bu ma liggéeyal booy xàcc woo na dugal si koñ bi nga laajte kan mooy Dangote. mooy yow muy waaw man la maay Dangote. mais déglu Pikine Gueye waa Pikine waa waa Guédiawaye instant dañoo mer te nee nañ sox nañ naan nag si guuxum soow am nañ sérieux problème ni mu def nii barki sëñ Bamba dañ ñoom dañ dañoo war a libéré ñun ñun ñu xam ni fu ñu toogee parce que ñun sox dañoo am si moom yaakaar nag xale la te ku ko jàppale mu dem mar la buñ téye duñu arrangé ay fan a ngi nii dañoo jooy ba sonn lii lañ doon xaar bis bii marle soq géejawaay Pikine dër bi la yàgg na di neex géejawaay laa duggoon génnaat damay duggaat génne. sox dafa war a ñëw pour xeewal fu bare soo xam nga la ak sant ngir yàlla war a suuli maanaam na toog si tànk yi dox si kawam. mar la suurul. xontuñu ko xontuñu ko. marle sooq na toog si tànk yi marle ñëw marle dina ñëw dafa am la yaakaar sooq marle bu jàppee tànk yi loolu gañ na ñibbi jël am na. wallaahi jël am na. ña ngay wax téléphone ña wax téléphone boo jë boo ñëwee ci suuf xaadim gis naa sokk bu ndaw génn sol benn tengaada nee naa la mbokk ndeye koy jur ndeysaan doomu ndey dafa tiis ma nga noona xale yaa nga noona di dugg ak a génn el 200 baa ngi taxaw ñuy waaj a génn xarfu xurfa yi ngi waaj a génn ngir jëm arène nationale ci kanam tuuti digganteem ak Marley combat bu Sénégal yëpp doon xaar combat bu amateur yëpp doon xaar nin koy waxee loo bañ mu yegg si bul ko jàppal bis maa la ko wax ay mboq bekk suukar ak suukar nu manqué ndax bekk suukar ak suukar nu manqué bu am mboq mboq benn mbubu jaune. gis naa ñu teg yi def yi vert ay jigéen leen tegtal maa la wax lii jigéen leen tegtal xalil maa la ko wax booy këf nañ ko booy këf nañ ko dinaa xam booy këf nañ ko. xam si moom pour lan la moom. xorom nag daa baax man man diggante xorom ak lamb jaaxal na na diggante xorom ak lamb. xam naa kóllëre gu yàgg la de loolu daal war na war naa seeti magi làmb yi laaj leen diggante xorom ak làmb lan moo dox seen diggante ak ndox ak ndox waaw waaw loolu question la ci biir question yi génn foog ñu sotti ndox waaw loolu jaaxal na ma trop sotti xorom ma nga noona cay cay làmb ji bi mel ni maa leen ngi waaj nat pour génn soq salxi pom yeeg ne déet xaaral xaaral gaa yi noonu salxi pom yeeg nee nañ xaaral bu yuuxu nañu ba tas ñoo ngi lay ñu ngi la fay grand bi waaw ñu ngi am jaam bu baax da ngeen waajee combat waaw kon nuñ ko doon waajee rek ànd ak suñuy mbokk waaw ànd ñu ñu war a àndal ñëpp waaji moom pare na instant bii waaw tey lan nga indi. waaw bëre rek bëre daan dem ñibbi incha allah. ndax saa xam na combat bi fu mu koy yóbbu. waaw combat bi teg jeexal la daan rek moo ko arrangé. daa am si lu mu jugee quoi. ñëpp nee na day ñëw pour song pour song tànk la jëm. si tànk la jëm waaw Marley day ñëw mais xam-xamu bëre doole moo koy tëj doole tëj loolu waaw. sox jóge si ay tolof tolof jël ku mel ni Marley ñëpp xam ko si wàllu lu mel si bëre est-ce loolu nekkul risque non du risque soxo ah, loolu du risque su moom ndax xale la waaw xale na waaj na lu mu war a waajee ànd ay mbokk ñu ngi koy ñaanal ndam lu sedd guy di ñaanal Ndaaru Sogaas ndam waaw di ñaanal tamit Xaadim bàmba ndam trois combats lañ si am di ñaanal ñëpp suñu trois combats yëpp yàlla def si ndam incha allah waaw. combat dina gaaw mun naa gaaw mun naa yéex ndax ñoom ñaan ñëpp a waaj mun naa gaaw mun naa yéex. waaw ñu ne ñu ne ñu ne marle dafa aay ci ci luur yi. la mbaa du ci boole. non loolu loolu mënul nekk sax. marle dafa aay si luur ak i luuram daa am yi mu doon bëre ak adversaire bi bokkul waaw ñu ngi ñaanal soq ndam ah non bokkul si côté yëpp adversaire bi dafa diis te daa mun a bëre waaw. Fils de Balla ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen fay bu baax. da ngay waajee combat bi. waaw comme ñu leen waajee yeneen combat rek di ñaan yàlla ma ñu ndam quoi incha allah. derby Pikine Guédiawaye encore une fois waa Guédiawaye si defee leen jógee mer loolu te fu mu toll nii ne soq rek lañ ko mën a fayee. non bu nekkee su soq lañ ko bëgg a fayam booy ñu lem ba mu roo ñu toog quoi xam na tey moom daan soq yàlla xam na ko. lu waral loolu. non dañoo xam li liggéey rek ak suñu mbër xam li ñu bu baax ak suñu combattant quoi. Mhm. si xeex wala si bëre. ci lépp bëre door lañ wax liggéey nañ ci côté bépp ci ñaar côté waaw. sox la ñu mën a gis tey. non sox bi daan gis rek bu gën a pire bu gën a waaw yaa ma a xam nañ gis tey sox bu ñu mësul gis incha allah. yéen waa Pikine nu ngeen waajalee nu ngeen waajalee si. waaw comme ni ñu doon waajal yeneen combat rek mais bii nag raw quoi ndax xam nga nit ku defet moom nekk xale rawatina nga xam nga Pikine ñëpp topp sa ginnaaw boo ñëwee tey da nga war a beneen xaar xam xaar kanam quoi. est-ce que la war mënul nekk pression si moom. non non non sox mënul du am pression si làmb nekk moom xam nañ ko du am pression si xam na ko mën nañu mhm. xaar combat bi am xeex bu wax ñun moom dañoo pare côté pare nañ ci xeex pare nañ ci bëre léegi nag léegi ci moom lay des lu mu bëgg rek incha allah ñu dem ci incha allah ki ngeen di bëreel champion la Marley bu mag xam nañ ne champion la soog xam na loolu waaw dina ko respecté jox ko cëram. combat bu nar a gaaw lay doon wala combat bu yéex. non ça dépend ci Marley rek bu taxawee mu gaaw bu fekkee dafaa nekk di kii nag xam nga waaw loolu moom muñ ci dara. bu taxawee moom dina gaaw mu yore est-ce que non sax gars yi dañuy wax dafa yor poids dafa yor mais man gis man sax gisuma poids bi mu yor de yàlla xam na wax yaakaar naa bii la gën a oyof sax ka moog Franc bi. ñu dégg Lirou Diane mu ne tey la bisu anniversaire am te dafa bëgg Marley andil ko cadeau bu rëy. waaw bu ñu ko daan a pare ñun mën nañ ko seet incha allah ñu jël ñu jël cadeau jox ko incha allah ba bañ daan ma Marley pare incha allah. mais mais fils de Batlen fan nga toll gis nañ sa combat bi mujj ak Toubacouta ni mu demee boo boo ñu ci doon ñëwalaat sa combat bi mujj ak Toubacouta ak bi ñu ci jëlee woon waa sax moom ñu ngi sant yàlla tari nañ baax a baax fi mu ne bu avance ñëwoon nii tay tay tay ñu jël ko incha allah. la woon exact loxo bi. waaw loxo la woon mais sant nañ yàlla baax quoi. loxo dafa damoon wala. waaw dafa blessé la woon rek. Ah, foxoj la woon waaw kii moom sant nañ baax tari na baax. mais yaa si entraîné ci contact di def lépp instant moom naa quoi. Mhm, ñu si def lépp moom. bu avance ñëwoon suba suba suba ñu jël ko na yàgg na incha allah. kan. non man ko ñëw ba léegi ñu leen Marley ci tànk yi la jëm léegi Marley bu changé stratégie tey est-ce que par ngeen est-ce que yéen a ngi xalaat loolu. waaw xam nga dañoo wax làmb bëri door la ñu wax mën nga ñëw fiti ñu indi fetal xam xam nga daal lu ko olof di waxe mais ci côté yëpp lañ pare bu ñëw si tànk yi xam ne foofu lañ gën a pare sax fu mu jaar rek fàtte lañ foofu incha allah. waaw ñun moom fu mu jaar ñun lañu fàtte foofu bu soobee yàlla war nañ ko te ci kanam yàggul incha allah léegi rek incha allah. xam nga Это... mën naa daw ba esaat kay sama may tigé rek dugg Thank you.

yaa booy yebal ki nga xam ne mooy soq ñu ngi fii Pikine yéen gis mbooloo mi macha allah gis nañ soq combat bu mujj. la mu jëlee fële ca arène ba. tey jii mu fas yéene génn nar a ak ki nga xam ne mooy Marley dégg nañ yu ñu wax ñoom ñaan ñëpp si seen euh, face to face bu ñu mujj amal ki nga xam ne mooy Marley mi ngi koy xamal naan kaan poids bi nga xam ne moom nga yor du naturel naan kaan maa aay si luur yi loolu la ko Marley nar a tuusal tey ñu gis ki nga xam ne mooy soq soq ne na ko ñu laale rek ñu dale rek ñun ñaar mooy làmb ji jeex na loolu la soq di xam ne. gars yi du yàggatul si kanam tuuti. ñoo ngi gis ginaar bu xonq ginaar bu weex lu muy jëriñ xayu këll googu waa ji mu nekk sëriñ moo nekk adjoint sëriñ bi mu nekk porte parole am moo def lu weex yeneen lekk itam lekk bi lu mu def war na xorom lay doon. te biir combat war nekk noonu toogatul taxawul de. ah bokk daa fort. toogul taxawul. ni nga xoolee nii dafa mel ne pression bi xaw na ko jàpp tuuti nag kii di soq mu soq mu ndaw. pression bi dafa war a yéeg. karaw ba soq ndaw di bëre. di laaj soq mag. mu ni sama combat bi combat bi moom gën a sama combat. donc c'est normal moom tamit mu am pression tey di ñu gis ne ñoom ñaan ñëpp ba ñuy mujj si arène ba defet lañ fa jëlee. tey ji pression faaw mu am parce que tey boo xoolee mbooloo mii nii daan na ëpp sax li waral tey mbooloo mi wàññeeku nii mooy defet bi nga xam ne moom la jógee waaye yàggatul den xam nax mbooloo mi dina dooleekoom déet ci kanam tuuti lay doon fële ci arène nationale mu ngi noonu. bëri bëri ma mel noonu bëri booy daan ah. yaa mën yaa ëpp doole yow la faral. yow la ñuy topp loolu ngay dégg. bokk si buntu bi daa mel yaayam la. ko maamam maamam. maamam yaayam yaayam la. yaay yaayam ngoog. yaayam ak noonu di génn. wan kanam. wan kanam buntu bi. buntu kër gi day xaar doomam génn mu defal ko ay ñaan balaa muy dugg si oto Soxongo maara boobu ñu gis Aliou Soxongo gis nañ ko keroog si Ada Fass tey ñu nañ ko fii gisoon nañ ko tamit si Tapha Mbeur ah. dañ koy faral di gis si gars yi bëri na yi ñu gis maara bi keroog mi ngi woon fële si open presse xam ne mooy Ada Fass moo taxaw si kanam soq noonu moo taxaw si kanamu soq li muy faral di génnee mbër bari na tey jii moo nar a yóbbu soq jàkkaarloog yaay Sokh. mi ngi jàkkaarloog yaayam di ko wax li mu war a def. Sokh nekk si ginnaawam. Sokham si ginnaaw noonu di génn mu ngi xool ci biti mbooloo mi. Sokh mhm. ngi noonu di xool supporter am yi. mel eh, am na lu muy tëri. am na lu muy ñaan am na lu muy ñaan. am na am lu mu tëj si am na luñ ko ay tetal la. ay tetal la. mbër yàgg na kaa yor buy bëre. mbër yàgg léegi maaraab bi mooy génn wax ko yi muy def ak bitel yi mujjee sotteeku. ak li ñuy wékk seen seen seen mbagg li. Uh-huh. lu ne la ñuy lëkkoo làmba mel noonu lu ne ngay gis. dégg nga lool. nga génn mbooloo mu ñëpp nekk sa kanam oto bi daa diis. suñu dem rek jox ma ko rek. waaw nañ dem rek yow. ay mbër la yëpp. dégg nga loolu. soxla ngay sax opital ba. wax bu ñaaw bu ñaaw gi noonu dee sa yaay juraat yaa jee nar a dee rek moo ngi topp si ñu noonu moo ngay sangoo saafara oh saafara boobu lekkat la lekkat la waaye li ko gis xamee du karasol bett na waaye du karasol. ba léegi boo xoolee soq génnagul gudd kër gi. génnagul. génnagul ba léegi balaa muy génn dafa am yu sangoo ba pare. yoo xam ne si biir kër gi la war a yem balaa muy génn. wallaay si bunt kër gi. bunt kër gi moo tax tegawul tànkam si biir ba léegi. dafa lay doon taxaw si biir bi. xëy na mu am yeneen yu muy sangoo. mais yii nii si biir kër gi la ko war a defee moo tax mi ngi noonu di génn nag. mi ngi ñëw mi ngi ñëw sees boobu la war a toog moom la ñuy yóbbaale sees boobu si kaw oto ba xëy na la jëm mi ngi doogay génn nag mi ngi doogay génn. tay ma rey la daal mbëri yem nañ tay ma rey la xale yaa ngay woy gaa yi nga xam ne ñu ngi suivre Wassare rek tey ñu ngi fii si ki nga xam ne mooy kii di Sokh yéen a gis mbooloo mi yaa ngi gis maanaa ba moo nga noon taxaw si wetam mooy génnee Ada Fass Ada Fass contre xam ne mooy Tapha Mbeur moom moo indi woon ki nga xam ne mooy Ada Fass combat Tapha mujj bi ñu gis ko mu ñëw indi Tapha tey nag mu ngi indi Sokh soq gi noonu di génn. soq génn. soq gi noonu di génn. ma ngay def ay débat dem ba léegi. sarax la yor mi ngi xool ki mu koy jox. xale la koy jox jigéen lay doon wala màgget la wala ko tatal. ma ngay sotteekoo leget. sotteekoo na ko. am na lu mu benn fas lu mu seq si gémmiñam. xob yi mu lonkoon nag mbëri tamit bëgg nañ ko ren yi mu lonkoon ba mu xob la la jeexagul leen toog na jeexagul ba léegi toog na si bun kër gi loolu jeexagul ba léegi wol ma moo wol ngeen lay daa jël lay teg si bopp jël lay waaye yaay ji mi ngi noonu daal di koy faxas mba di suuf yaay ma ngi noonu jàkkaarloog moom daal di jaar lay li yaay ba ngi noonu jàkkaarloog moom sottoo saafara bi ba léegi mi ngi sottee ko ay bitéelam moom noonu jàkkaarloo yaay. jërëjëf sa yaay mu fas mu war laa ñaanal nga dem. war a jàmmarloo lu daw yaram. yaram ba tàng na. yaram ba tàng na. yaram ba tàng na. Ah. aywa jël na koo ba daal di rey. déggal ma xale yi li ñuy wax. déggal ma xale yi la ñuy wax. muy fii nee na Pikine ragal du fi dëkk. ragal du fi dëkk. Cheikh wàcc na nag. mi nga jàkkaarloo yaayam. yaayam nga jox conseil. nak enu ñu ndam. diw mooy sa maam. yaayam a ngi wax ak moom. moom kay bak. moom kay bak. ndeysaan jëm. ndeysaan oh yaay sëgg na. daw na yaram. bu ñu enu ndam. daw na yaram. wallaay oh yaram daw na. yaay kay mënu koo fay. Uh-huh. yaa jëm kay bak. ndeysaan. li jar naa liggéey ba dee. ndeysaan waaw. wallaay ndeysaan. ndeysaan yaa ngeen koy ñaanal da ngay saafante. lii boo Dakar gaynde sax mun nga ko yanu. Sokka Ngom. ba léegi mu ngi débat bi ba léegi. ñoo koy moo ngay ñaan. jaaji dugg na. soq dugg na daal di jëmale isaat mu toll nii lu waay doon jaay lengu lamb jàkkaarloog maar des des mu toll nii leer na ma ni maar la moom diin moom ngay dem isaat ndam rek ndam rek dañuy daan jël bilaay sook kese amul leneen dina ko duma dina ko daan bilaay da koy daan da koy daan bu laajee xeex su day xeex